أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وأفضل الصلاة وأتم التسليم على سيدنا محمد الصادق الوحد الأمين وعلى آله وصحبه أجمعين mbokk yi ñi seetaan ci réseaux sociaux yi ak à travers le site d'information dakarmidi point net ñi ngi nuyu kenn ku nekk ci turam ak santam ginnaaw bu ñu santee yàlla des di ko sant di julli si yonent bu tedd bi sallallahu alayhi wa sallama di ndokkeel aussi ñëpp ci weeru koor wu màgg wi nga xamante ne si la rencontre bu exceptionnel bi am diggante yonent bu tedd bi sallallahu alayhi wa ak le Saint Coran ñu ci ndokkeel ñëpp muy weeru repentance di weeru miséricorde di weeru solidarité di weeru générosité di ñaan yàlla mu nangul ñu ko nangul ñu bépp ñaan buñ ci def mu ndottal ci aussi jàmm ci suñu réew ak ci lii ñu dëgmal jëm ci muy ay élection législative muy ay élection cruciale d'ailleurs yal ci yàlla def jàmm ma ñëwoon nag tey jii waxtaan ak askan bi ndax boobu ba léegi ñi ngi nekk ci déglu ginnaaw bi Manko Taxawu Sénégal soso nga xamante ne tey jii c'est une coalition bu porter l'espoir de tout un peuple ginnaaw jafe-jafe yi ñu nekkee jamono ji mënul woon ñàkk aussi ma ñëw wax ci sama position man mi demoon fekki leen ginnaaw bi le ministre Cheikh Bamba Dièye ñëwee seet si ma demande ma ak ay argument yu yu solide pour ma ñëw ànd ak ñoom ci élection législative yi ma loon ko ko moo tax tey jii bi nga xamante ne réeroo am na ci baax na ma ñëw ku mel ne man euh, bokk ci la conférence des leaders ñëw taxaw aussi euh, wax ñëpp seen sama xalaat ci naka laa ci nar taxawee ginnaaw bi ma échangé il y pas longtemps ak le coordonnateur Mali gàkku xamal ko ne sama position ci lii mooy des di ànd ak Manko Taxawu senegal ndax dama am yaakaar ne ci coalition bu mel noonu rek tey jii lañu ñu mën a jàkkaarloowee ak président Macky donte nag soo ko seetloo seetlu ñi mu àndal daa mel ni ñoom euh, pare nañu jëm ci combat bi. mais li am solo tey jii su fekkee waxtaan rek la des nañu waxtaan ak askan bi ñu xam urgence bi tey jii mooy imposer à Macky Sall une cohabitation lii mooy urgence su tey bi te kenn ku ne ci ñun war ci war ci indi conscience am kenn ku nekk ci ñun war ci def taxaw seetlu kenn ku nekk ci ñun aussi war a xeex ba ñu dem vers une cohabitation à l'Assemblée nationale ngir wàññi le pouvoir yi nekk ci loxo makisal dafa bëri bëri boobu mu bëri moo tax tey jii boom yomb ko moom président de la république moo tax jot na kenn ku nekk ci ñun taxaw taxawaayu principe taxawaayu engagement ngir xeex ba au soir du 30 juillet incha allahu taala la victoire mu changer de camp Benno euh, daal di am euh, défaite Manko Taxawu Sénégal daal di dugg ci assemblée national avec une forte majorité ngir ñu mun a soppi li xew ci suñu réew ngir tamit askan bi tàmbalee xam signature petrol bi ak signature gaz yi naka la tëddee ndax boobu ba léegi dafa flou ci ñun ndax ay nit ñoo ko ŋànk bokk benn pouvoir te askan bi ñoo moom seen alal te ñu xam seen alal naka la ñu def ba jaay ko wala naka la ñu def ba signer les loolu dafa nekk problème deuxième chose bi mooy damay woo ñi génn ci manko wala ñi nga xam ñi ci yoonu bàyyi manko ma leen lancer un un message un appel solennel di leen ñaan soxlawuñu jamono ji ñu nekk ni dispersion dañu soxla ànd na nit ñi comme ni ko président Idrissa Seck waxe woon euh, coordonnateur Malick Gakou indi ko ak ñeneen i nit ñu ñoo xamante ne tey seen taxawaay ngir mbir yi soppeeku ci réew mi euh, am na am na solo lool ñëpp ñu ngi demander que nañu ànd. donc message bi ñoo ñu la concerné mais en même temps mu concerné aussi euh, ce grand patriote ce patriarche muy le président Abdoulaye Wade ki se trouve actuellement à Versailles en France. maa ngi koy lancer un message ngir mu bokk dajale famille bi ba ñu ànd ñun ñëpp jàkkaarloo ak président Macky lii mbokk yi dafa nekk lu lu am solo ci li war a xew ci li ñu war a yëngal na nit ñi taxaw comme ni nit ñi taxawee ci biir réseau sociaux yi na nit ñi taxaw tey ji ànd xeex bañ a tas ndax aw say moo gën fuuf ay matt yu yu tasaaroo seeni safara dafay xaw a euh, dafay xaw a doy moo tax tey ñu ñu ñu loolu tubaab di wax l'union fait la force que ñu jéem a ñun kenn ku nekk ci ñun def benn sacrifice ngir ñu yaatal ànd bi ñu ànd ci Manko Taxawu Sénégal maa ngi santaat yàlla bu baax di confirmer sama encage dans la coalition de Manko Tahaou Sénégal. Nous avons aujourd'hui un combat, celui de redorer le frontispice de la République sénégalaise, qui aujourd'hui est aujourd'hui confronté à de réels dangers, des dangers provoqués par le régime en place qui n'arrive plus à pouvoir gérer la, la République et à être transparent dans les, les formes de négociation euh, dans les contrats miniers et, et, et pétroliers. Et nous osons espérer aujourd'hui, avec la grâce de Dieu, avec ce mois béni de Ramadan, par la grâce du prophète Mohammed, nous osons espérer aujourd'hui que le peuple euh, nous donnera oreille afin d'écouter et de manière euh, très profonde ce vœu profond que nous avons de changer, de vouloir changer les choses dans notre pays. Il est temps que les choses changent. Nous ne pouvons plus accepter qu'un homme au palais puisse aujourd'hui se permettre de tripatouiller la Constitution, se permettre de persécuter les gens ou de les mettre en prison à sa guise pour satisfaire uniquement ses caprices et les caprices de, de son épouse et de son clan et de ses amis. Cela doit aujourd'hui cesser dans notre pays. Nous avons besoin d'aller vers une grande révolution silencieuse, celle de, de, de, d'imposer au camp présidentiel une cohabitation. Mais pour que cela soit, soit, soit effectif, il faut donner de la matière au président de la République, comme j'ai l'habitude de le dire. Je profite donc de cette occasion pour vous dire que nous allons lancer dans les jours à venir une opération xeex xeex bi debout citoyen pour qu'on puisse ensemble aller vers une cohabitation au soir du 30 juillet 2017 incha allahu taala maa ngi nuyu ñëpp euh, di sant ñëpp di ñaanal ñëpp kooru jàmm di ko ñaanal suñu bopp di ñaanal jàmm ci suñu réew asalaamualeykum wa rahmatullahi taala wa barakaatu.